luy dama leen mbokk auditeurs yi dalee kiis ma jukki leen li gën a fees ci talaata fukki fan ak ñaar ci weeru décembre bokk na li ci gën a fees deen yu xam mooy mbirum fonds commune alloué bi nag agent ministre yi xam te ñoom ñoo nekk ci koom-koom bi wàllu finance gi koppar gi ak ci atum bi ak nomination président ci cadre concertation processus électoral yi bokk na li ci gën a fees acca ubbil yéenekaay bi nag dem ci loo xam te wi nag taxaw nag leer nañi nee na nag ñàkk tolloole na ci répartition nag ci li nga xam te ni nag tolloolewul yu mbir yi waaye nag loolu nag war nañ koo corriger xoolaat nag na mu demee loolee nag la yenn député yi nag di ñaawle nag te nee nañ nag dañ ko xool ni muy demee ci lépp loo xam te di manquement na nag boo moytu loolu moom moo di fonds commune bi altine gi ñu weesu nag ci la xam te ni moom mooy ministre bi yor koom bi di Amadou moom nag ci biir yéene kaay bi nee na nag la woon ngir ñu voté budget bi budget général bi ci biir état bi jëm ci atum 2018 bi waaye le quotidien yéen kaay ne député yi naka ña ngay réclamer nee nañ naka nañu xoolaat li nga a teg ci biir nee naka fonds commune bi naka moom moo nekkoon li nga xam naka moom moo di waxtaan bi ëppoon solo ni démb foofee ci assemblée nationale ak député yi nga xam ñoom ñoom ñoo fa teewaloon askan bi ki nga xam moom moo di Amadou Ba yor koppar bee kopparante bi naka moom fi budget ba le naka moom moo waral coow ci loolee naka fond commune ba tax laas yéene ne nag may ma ma wax leen loo xam te na fa ki nga xam moom moo di ministre bi la mu fa yëkkati nee na agent financier yooyu nekk ñu loo xam ñoom ñoo di médecins yi waaye nag ci biir yéene bi nag ma ngi ciy génnee lu am solo nee na nag ci biir député yi di ci xëcc nag di ci bàyyi loo xel li nga ñoom ñoo di député yi nee na rawatina waa opposition bi nee nañ commune neneen nañu xalaat xoolaat moom moo di département boobee waaye nag laas yéene kaay ne moom moo di député Abdoulaye Makhtar Diop bokk ci majorité bi waaye nag dafa bañ a nag nag àndul ak moom waaye nag li nga xam te ne nag moom moo di suppression fonds commune boobee waaye nag ma ngay artu agent ministère économie yooyu nee na nag di korom njuuj njaaj rek ngeen bëgg a jógee le quotidien yéene kaay ci wet ga ne nag député libéraux yi ñoom nag dañoo gedd daal di buub seeni i bagage nag daal di buudee génn saal ba assemblée neexoon na loolu waaye nag foo sànni kon mbaak mu toj mbate jardin d'enfants waaye nag sol bu ñu jàppandikoo ci yéenekaay bi nee na dañoo quitté salle bi sànni lépp li xam te moom moo di question préjudice bi ne looloo tax sax ba ñu géddee génn tax sax ñu daal di voté voix bi ci cas majorité ci même ci loi ci sunuy koppar ci biir cadre programme triennal d' investissement public bi di PTIP un pro benn budget la nag ambitieux ci biir communauté yéene kaay bi ne nag lu toll ci téeméer boo jël juróom fukk ak ñaar la ci ressource interne yoo xamante ni nag priorité bi nag li ko jax a jóg nag moom moo di accord bi ñu am ak yenn régions yi député yi nag adopté yi nañ loolu foofee ci assemblée bi ni ki démb waaye nag tënkuwul ci benn loi loi finance initiale 2018 bi montant bi nga xamante atum 2017 gi ñu weesu budget bi nag yokku na yokku na gu baax nag yokku na ci diggante boo xamante ni nag toll na ci milliard la valeur absolue di maanaam téeméer boo jël fukk yu ñu toftal la ñeent pour cent la ci maanaam 10 virgule 4 pour cent état Sénégal maanaam nguuru Sénégal mi ngi leen ci alweelu ci lu toll ci 6 ci suñuy koppar koppar gee ko bëri waaye projet triennal investissement public bi di PTIP ci biir période bi toll ci 66 milliards maanaam téeméer yoo jël fanweer ñu toftal juróom-benn ci rubrique budgétaire bi nga xam moom moo période priorité ak période bi dox ci diggante jëm waaye nag ci politique Walfadjri quotidien yéene kaay dellu siwaat na ci opposition bi ne nag ñu ngay ki nga xam moom moo di Seydou Nourou Ba bañ nañ ko carrément nee ko nag moom lañ nommé ci tête cadre de concertation bi ci processus électoral bi looloo waral coow waaye nag bu ñu ambassade de Seydou Nourou Babi mënta nangu te duñ ko mës a nangu li nga xam mooy présidence comité de concertation du processus électoral et du divertissement kooku mënuñ koo nangu sàcc la ak luñ bëgg a lax mbaaj waaye nag ma baleen fa daal di tukki nag daal di dem ca bitim réew xool la xew waaye nag ci lu ñu mën a jàpp ca la farusee foofee ca Kinshasa lin lañ fa mën a tënk nag ci conclusion bi dox ci diggante Union européenne ak waa e RDC ak réaction Touba nee nañ nag sanction boobu kenn ko dindi dañ koy wéyal waaye nag feneen ca keneen muy Algérie collectif boulanger yi xam ne bëggoon nañoo yokk mburu bi ci téeméer yoo jël ñu teg ci fanweer maanaam waaye nag dañoo lajj ba périer ndax autorité baa lànk carré ne la nag bu ko kenn yokku te ku ko yokk danañ dal seen kaw séeréer ya nekk foofu nag danañu kontaan waaye nag ci Europe laa jëm diggante France ak Amérique situation ba foofe ci États-Unis ak yi Donald Trump jël ci biir responsabilité face à histoire boobee Emmanuel Macron changé avis xoolaat mbir moomu bu baax dëkkandoo jàmm ci gën maa ko fan waaye nag ca ma tàggat sama yaram mondial 2018 ak sunu gardien bii di Khadim Ndiaye nee na nag tiituma benn joueur waaye du Lewandowski du benn équipe je ne crains aucun joueur ni Lewandowski ni aucune équipe mooy gaynde gu wóor nag waaye ubbi leen seen nopp ngeen déglooti ma ma waxati ngeen déggati lii mbir mu doy waar la scandale Mbàkke la xewee ginnaaw bilan bañ fa def nag lu toll ci 300 cas maanaam ñetti téeméeru cas de viol ci mitinre ci diirub sept maanaam juróom-ñaari at lañ fa ràññ nga ni moom moo journée des droits international des droits humains ki xam le noonu nag moom moo di directeur de centre de guidance et familiale di CGD di Serigne Mor Bay moo ko xam le nag nee na trois cent cas de viol la ñu ràññee ci diirub juróom-ñaari at foofee la xewee ca Mbàkke mooy doo waar loolu rek moo tax Sénégal du mën a émergent sunu cas dafa critique mangoo ko daw naa wasalaam